mbokk yi na ci yaatal vision de leen ak jàmm ci xibaar li ci gën a fees nag bokk nañ ci journaliste bii di Pape Alé Niang ginnaaw nag ak ak jàppam moom mooy di Pape Alé bi nu ko daal di teggee loxo li nga xamante ne bii nag moo di li mu def di benn live man xamal nag ñi nga xamante ne bii ñoo di kilifay diine yi fii ci biir réew mi di xam le nag ne ñoom seen ki njaboot lanu seen njaboot lanu saa suñu jàqee nag ci ñoom rek lanu sañ a jooytu jëmale waaye kilifa diine yooyu nag seenam jooytu jamono ji temb nag mi ngi jëm ci nekkinu biir réew mi yore nu nga xamante ni bii président Macky Sall nag yore na ko biir réew mi jàpp ñi nga xamante ni bii nag ay euh, adversaire politique lan mu daal di jàpp leen di leen tëj loole nag moo tax kii di Pape Alé Niang di fëgg gémmiñam jamale ko ci kilifa yi nag ngir ñu daal ñuy taxaw bu baax a baax a baax ci jàppandal gi nga xamante ne bii am nañ yaakaar ju mel noonu ju jot sëkk jëmale ko ci seen jëmm looloo waral nag Pape Alé daanaka ab live am daal di leen koy jagleel ci aslëf ca biir live boobee di xam ne nag ne kilifa diine yi ñu ngi nag sukk seen kanam nag di leen nag jégal ak di leen wilipande li nga xamante ne bi nag moo xew ci biir réew mi ngir ñu àddu ci ji taw ñëpp dégg leen ba nga xamante ni bi li ni saafaraw xëy na jàpp na ne dina saafaro nag ci seen ay kàddu ñi xamante ne bi nag dañ leen a jàpp